dafa garaaw xool tey kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla def ci réew mi. waaw seetal lañ doon wax démb ak bërki démb dañu ne woon euh, suñuy bal kenn dootu fi faleti kenn ab directeur général. suñ lay faleti léegi appel à candidature la ñuy def. waaw appel à candidature léegi suñ ko defee ñu xool ki nga xam ne moom moo présenté meilleur profil boobu ñu fal ko. waaw ah. waaw ndax def nañ ko. déedéet. di je n'ai rien contre eux nag. ndax man du ma faral buur du ma contre buur. waaw mais dama la bëgg a wax firnde laatal lii moo tax ñu ne wax baaxul gaaw wax baaxul ndax li ngay wax wóor la ndax na nga ko waxee noonu la. waaw. te góoma de. fekk saa mais ak bi ñu toll est am nañ temps boobu ñoom tamit. waaw non bul ma wax temps. temps appel d'offre am nañu temps temps temps pour wàññi dund kay la ñu il faut ñu càmbar ko xool nan lay demee. waaw ñu mu mu laaj temps. waaye temps bu dee fal directeur lancé nañu port ka fa nekk dañ ko fa war a jëlee. Ah. lancé nañ appel candidat nañ ñëw ñun ñoo ko waxoon mu ngi nii.

yaakaaruma ko contre ah. ma leen nag dëgg la mais j'aurais préféré sama xel mu ngi doon dal su nekkoon ne dañ koo débuté hakka saa su ko defee kat ah parce que bu ñu fàtte ne tamit euh, kële Sonko toog na ay yooni yoon wax ko waaw président Diomaye son excellence toog na ay yooni yoon wax ko waaw du dëgg léegi président dootul falati par décret ay ay directeurs généraux dootul tamit jël benn kii di jël ay dañuy def appel à candidature kii présente meilleur profil bi ñu daal di koy jël teg ko hakka saa lu tax notifier sang dama la ci wax. dafa wax ñuy même micro bi sax la mais man contre ma leen duma contre sam duma contre ma contre ma contre faral ndax ci sama kaw. du mbokk. bëgg wax avec l'arrivée bu dañ doon les les les paroles les écrits restent mais avec l'arrivée de la nouvelle technologie maintenant les paroles restent. foofu dama fa bëggoon poser benn question déjà. Aïcha ndax wax tey jii ni kon dañuy bàyyi ba mu jot ñu wax ko wala dañ koy wax laataa moo jot wala dañuy bàyyi ba mu romb ñu wax ko. waaw comme que li dese ci temps bariwul foofu pour ma tontu la ci. waaw way wax ba dafa wax ne wax dafa toog ba yàgg di jooy. waaw. <laughs> ñu ne ko wax looy jooy mu ne dañ ma wax fu ñu ma warul waxee. xakka saa beneen yoon bi. waaw ñu fekkaat wax di jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañ ma wax fekk ma weesu. ñettal yoon bi ñu fekkaat wax di jooy ñu ne ko wax looy jooy mu ne dañ ma wax fekk jotaguma fekk kon wax bu jooyee rek ñett la jooy te saa yoo yëkkatee sa kàddu di wax aussi raw nga ñetti buum teg ban ban mën nga wax ba yeew nit ñi mën nga wax ba yeew sa bopp waaw mën nga wax ba yiwi leen laa <laughs> ilaaha illallaah te li wax ba sa bopp moom moom moo gën a nekk <laughs> benn bi moom mooy eh, wax bu bu bu jotee wax ko bu weesoo bul ko wax ak lu mu metti metti bu non bu bu lu metti metti metti bu wesso rek bul ko wax parce que amon na wax buy am bu njëkk bo xamne fitna la won nga dem diko waxat encore nga yaayaat fitna. fekk saa bul ko wax. benen bi mom moy que ne parce que temps bi dafay jaar da parce que dag me poser question question da réponse dafa complète. waaw. Euh, xam nga tuba dina deg ñu ne avant de tourner la langue xawma avant de parler il faut remuer cette fois la langue. waaw mais mën nga ko remuer cette fois nga wax musiba. parce que kat kay jangale wax dene saa yu yëkkatee sa kàddu di wax di nga wax lan laay wax. waaw nu ma koy waxee. waaw ñan laa koy waxal. ak fu ma koy waxee. lu tax ma indi fu ma koy waxee bi jaay laa la fu ñuy toggee cere. waaw. yaa ngi dégg. waaw kon ñoom tamit waxoon nañ fi ni lii dañuy def appel à candidature wax dafa garaaw. c'est pourquoi je demande aux uns et aux autres képp kuy campagne wala képp ku bul dige loo mënul bul digee loo xam ne xam nga ne ak jamono bi ni mu mel nii. yaa ngi dégg. parce que bu ëllëgee dinañu la yaa ko nooyoo. Ablaye Wade waxon na ko ñu ne ko waxon waxet waaw du deug ak ñeneen ak ñeneen da di mag bo gisee mané la man gëwuma politicien mo waaw <laughs> <laughs> baal ma ci kàddu waaw euh, jégal ma ci kàddu gi gëwuma politicien parce que ki followul rek mo bax fi kii faloogul rek c'est-à-dire que la vérité appartient à l'opposition mais cette opposition aussi quand elle accède au pouvoir elle perd la vérité ndax la mu doon xeex lépp dootu ko gisati la mu doon fustige yëpp dootu ko gisati donc lan lay gis léegi xam na ne maintenant réalité yi ma fekk fii bokkul ak la ma doon wax ba ma nekkee ci tuus bi xekk saa mu taal heure bi jot na heure jot na waaw kay ñu ngi ñëwaat léegi bu ñu demee commercial ba ñëw dinañ ko yaatal ah incha allahu rabbi